ndax dañuy wax ne addu'a aw muxul ibada ñaan mooy ngànnaayal jullit mooy addu'a aw silax mooy waaye al muxul mooy mooy jaamu yàlla jaamu yàlla bu am na gi yuur mooy ñaan yonent bi ne sunu borom day ku toog suba ba ngoon ñaanoo ko dana mel ne ndax xéwal yi yaatu yi mu yor ñaan am feneen fi wax ne ud'uuni astajib lakum نان لين ما موي لين وخاد يونتي نكو واذا سالك عبادي عني فاني قريب نجيب دعوه الداعي اذا دعان خمل لين نلين لي ني واخ اك لي ني بëgg ديغم مبيت كو جيغلا ناني ما وو بو ني ما وو دا نخم دا نخم كو جيغلا بارينا اي نان يون كو نان مول يونتي بي سونو بروم وان كو تي لولي امنا فسن توبا اذا الدعاء ينفع ميتا في القبور wa yanfaul xaya wa yujibul ujur ñaan day jëriñ kii dund waxtu wi muy dund ñaan day jëriñ kii faatu waxtu wi mu faatoo dafa am nag ñoo xam ne dañoo weddi loolu ne ñaan amul benn jëriñ ci ki faatu waaye loolu dara wéru li ko dàq mooy li mu wax ne ud'uuni astajib lakum lay def ak lay dindi ci loxoom la nekk te ñun dañ koy yalwaan di ko dagaan rek kon bu ko santane nañ sa yo xamé né jang nañ alquran bamu jeex ah ñu ñaan ko ndax mo wax né dana ca nangu dana ca maye ay cër yu duun waye dana ci jéggalit ay bakar. kon ah, manis naa rafet njort ci li ñu def té ku ci nekk ya gëna xam sa bop sa morom ginaaw bu xam-xamu yalla wé lo xamné ni xam nga ko ci sa jëmu man nay lu ne la la ca naqari te neexu la la la ca tiital yëpp nga ñaan rek sunu borom mu faral la ko mu jéggal la ko te dindi ko firiwut nag nag ne su soo noppee rek dootoo defar bàkkaar déedéet bu doonte ne loolu la mbir yu bëree bëri ci ay musiba ma na laa mën na laa dab mën na laa lor ndax naago la ñuy bañ mu mu dikkal la dañuy bëgg saa su nga nekk ci diggante alxawfu war raja di yaakaar yërmaande yàlla waaye di tiit loolu yaakaar ne boo moytuwul da nga alku loolu lépp nag di xam le di xam ne rek ne àddina ji nekk daa saxut te yàgg-yàgg dañ fi xale jóge ndax nuñ ko mën a defee rek ak nuñ ko mën a rafetalee rek amoon na ñoo xam ne ñoo ñu ëppoon pasif fop ëppoon ñu yitte fop gënoon ñoo mën a jëflanteeg sunu borom lool waaye teewut ñoom ñëpp ba seen waxtu jotee dañ fay jóge bañ demee it boobu ba léegi ña nga fa ñu tëdd la ñuy baax baax baax xam-xam bi xam-xam bi nekk ci nuñ tëddee nag ak luñ fay daj ak luñ fay dund kenn gënu koo xam sunu borom ak kum ko xamal loolu nag di wane ne kon saa yooyu dund góorgóorlu ci aw yiw ak njub ak mbaax ndax nee na ñi faatu ñëpp buñ leen yeewoon ci seen biir bàmmeel ka leen sañ a yee yee leen ne lu ngeen bëgg lu ngeen gën a bëgg dañ naa ko dellusiwaat ci àddina ngir jëfaat lu baax doogu mën a dellusiwaat fii am na sax ñu ko taawil ak bu seen kër taxawoon ak jàkk ji doo dugg mukk seen kër du am ndox du aw ñam dara jarul leen ko ndax yaakaar nañu yàq temps la saa su ne ñu ngi jëf aw yiw ndax xam nañ fi ñu jugee ne dara du fa doy xam nañ ki ñuy jëflanteel lu ne dana ko fay wa man yaamal misqaala darratin xayra yara wa man yaamal misqaala daratin sharran yara lu baax lu tuut tuut loo ci jëf da nga moom aw ñaawtee fit lu mu tuut tuut loo ci jëf boo deltuwul ginnaaw da nga dajeeg moom yàlla nag dafa wax ne wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati fardan doomu aadama yi dañ leen atti kenn par kenn ku ci nekk sa jëf rek la lay fay bi nga wéetee ci biir néeg bi ak bi nga wéetee ci biir wanam bi ak bi nga nekk ci digg àll ak bi nga nekk ci nit ñoo xam ne kenn xamula ci la nga fa jëf mbaa la nga fa wax mbaa la nga fa jëf lante dara na buwul fa moom te dana ko jëflante yow bu dee deltuwoo deltuwoo ca gannaaw loolu nag li muy dimbalee nit ki mooy foo nekk rek foo man a nekk ak fu mu mën a doon jëlal moom teg ko ci sa kanam ndax nee na képp sëñ Tuubaa nee képp ku koy gis ci lu mën a doon mu lay too feexal ci lu mën a doon képp koo xam ne doo ko gis ci lu mën a doon nee na daanaka xaw ngaa alko sa dund kon nag sëñ Tuubaa jàngal nañu ne buñ bëggee jëriñu te moytandi ko ak loru yàlla moom lim doon nañ ko saxal buur ci sunu xel saxal ko ci sunu xol ba na fas ko ci sunu ci sunu lépp bari na ay barab yu ko wax man zanna gayra allah yugni aw yadur fa daaka fi daarin zu kadbin wa dur ku njort ne keneen ku dul yàlla mën naa jëriñ baa mooy lore nee na nar ngaa dee ak coono nar ngaa dund ci it ci ay coono daan ku weex lorewut jariñewut ku ñuul lorewut jariñewut ku baax lore lorewut jariñewut ku bon lorewut jariñewut kon mu mel ne njariñ ak lor ci loxoy suñu borom la la nekk loolu nag déggin wa ci gën a neex mooy da nga xam ne moom moo bind lor bind njariñ waaye fu nekk nag mën na ko faa jaarale mën naa jaarale njariñ yi ci li ngay naan ak li ngay xewul loraange it mën na koo jaariñe ci diggante jiit yi ak jaan yi ak gaynde yi ak xeeti taxaw di ak yu ne mel lépp moo ko waaye dañuy bëgg daal lépp nga delloo ko fa moom sëriñ Tuubaa ne dimbali yàlla lànk kenn du la mën a dimbali ci ñoom bu ñëpp maasé woon fas yéene laa lor mu lànk ne kenn du la lor ndax secret bi nga xam ne mooy téye ñëpp daane fa moom secret bi nga xam ne mooy yëngal ñëpp daane fa moom dara taw inna allaha ala kulli shay'in qadir kon nag kooku kuy talal sa loxo di ko ñaan war nga sant yalla sawar ci ak ñaan mandargam taxé la sawar ci ñaan ñaar ñet rek nga talal sa loxo ñaan di ñaan ci barabu di ñaan ci mujjug jëf yu baxé diko di ñaan ci barab yi nga xamné ni yaakar nañ fa aw yiw lool lepp barab yi ñu ñaan la na nangul wajur wi ñaanal ay doom desa na nangul nit ku bax kuy ñaanal kamuy ñaanal waye dees na nangul it gone gu bax guy ñaanal ay wajuram dees na nangul it nit ko xamne ne dafa nek ci taw ba muy ñaan dees na nangu ak ñaanam dees na nangu ñaanu kep ko xamne da daa da deltu ginaaw na ay ñaanam kon bu ko lo loolu lepp pas-pas bi day wor xamne yalla moy ki nga xamne dara taw te man na lepp bu ko defé kon buñ muk mukk ci lu kenawit buñ deltu ci lu bax ndax li ma wax léegi rek moo ci am fii ju Tuuba yi saa nit daana jóg ne dama bëgg a ziyaare ji tey sëriñ Abdul Ahad Mbacké dem fekk ko belal mbaa beneen barab dem joxe addiyaam sukku sëñ ba wax ko lam koy wax mu dégg ko mu dem moo xam Dakaaru la jëm mbaa kees mbaa mu delluwaat fii kër këram ci biir Tuuba mu dem ba ay jëmmi jamono mu mel na loolo ay gént la fi moom ndax lan daa mel ne lu fi jaaroon jàll rek mu koy nettaliwaat keneen kooku yaakaar ne kii day wax rek ñu ne ines tuuti sëñ Abdou sëñ Abdou Xaadir Mbàkke toog jotaay bu mel noonu nit di ko dee di ko fekk ci barab yi nga xam ne yàlla tànnaloon na ko fii ci Tuubaa muy dénkaane ak a waare ak a yeete ak ñaan kooka it nes tuuti bu gisatul sëñ bi noonu moo wax léegi ci jëflante nga xam ne moom la jëflante woon sëñ Abdou Xaadir noonu rek lay mujj demee ci moom lu jamono gën a dem lu jamono gën a dem mu mel ne yëf ay gént noonu ci yow di ko gëm sax di nga xam ne dëgg la waaye nag li la ci jaaxal mooy ndax mas a fee jaar nga di ko nettali keneen mu di ko sikki sàkk ginnaaw yow yaa dem ba mën koo sikki sàkk keneen mën naa dem di ko ngir yàggu yàggu nga xamoon ne nga mën a wàcc yàlla ne nii ne ay nit yu baax la ñu woon yàlla jaraloon na leen seen gudd jaraloon leen seen bëccëg seen dund gépp ci yàlla lañ ko jeexal ndax ñooñ ñoo ñoo xam ne biñ nekkee toll ci ay fukki at wala boog fañu toll ci ay at yu néew ñu den di tàggal ci julli guddi di leen di tàggat ci yu baax yu baree baree bëri te noonu lañ wéyee ba li soob yàlla liñ fi dund ñooñu neexul ba neexul waaye yu baax lañ kon nag su fekkee ñoo fi mën a bàyyi ko fii ci àddina ñun ñoo dooleel àddina fullaal ko jox ko benn gëdd boo xam ne yelloowu ko ba tax kuy dem ku ne da tiit ku fi nekk ku ne doo bëgg dem te faw di nga dem bu doon ne doomu aadama mooy dem. mooy demal boppam du gaaw a dem waaye dañ koy delloo dafa am ku waxoon ne walaw anna ida mutna turikna la kaana al mawtu raaxata kulli xayin walakinna ida mutna buisna wa nasalu baadahu an kulli cheyin su doonte ne képp ku faatu ñu bala nga daal di jeexal tàkk yëf yi daal sa yem kon faatu di noflaay doon itam ak féexal waaye boo faatoo dees na la laaj mboolem li nga mas mas jëf lépp ci àddina من المه من المهدي الى اللحد مهد موي فين لا تك بيغا غاني ادني لحد موي فين لا تك بيغا فاتو موي جاغ ليغا في ديف ليب ليغا في واخ ليب ليغا في ديف لانت ليب ديس نلاكو لاج ملائكه يي لاج نك كين كا منكر لا تود كين كا نكير كين كا خمول كو يالا بين كين كا كو يالا بين كو ني امبلي ني ورا ديف لانت يو نك دي لاج اي مير بوك نا لاج كان موي سا بوروم دونتي يو من غا خم سا بوروم man nga koo ëmpale waaye ñoom xam nañ kay kan mooy sa borom jën diine nga doon jaamoo yàlla ndax li tax laaj bi baax mooy doomu aadama bi ci jëmmi boppam su waxee lu dul dëgg dañ koy fitnaal kan moo doonoon sa kilifa ci yeneen yi ban téere nga doon sukkandikoo di xam fi ngay jaar ba war a def li nga war a def ak wax li nga war a wax yii de bokk na ci yiñ koy laaj ci luñ saxal lu wóor loo xam ne yonent bi ko jàngale bam ko waxe watay nak amul ben wax bu ñewat buy tuxal waxam waxam joji ndax wama maa anil hawa in huwa illa waxyun yuha allamahu shadidul quwa dhu miratin fastawa wa huwa bil faqil ala summa dana fatadalla ba ay ayaat ayaat yooyu yëpp mat di tektale ne mom limi wax donul lo xam ni dañ koy wax tay mu don deug ëllëg mu ñak don deug bim doone deug lay don deug ba ila yami din deug lay way di don dara mënu ko sot kon nak allamahu shadidul quwa kooku nag ku muy jàngal ku ne di nga xam li nga war a xam bàmmeel boobu nag Sëriñ Tuba am na ci ay jàngaleem yu wane na nee na munkar ak nakiir seen seen bëñ yi ne ci seen seen seen seen gémmiñ dafa xaw a jumtukaay boobu nga xam ne mooy ak ndaraan bañ gudd lay doon yoo xam ne ci lañuy ñuy xottee suuf si ñëw ci néew bi seen karaw gi na daa gudd bay buubu seen bët yi mel na luy génne ay ferñeent nee na nduruwuñ jinde nduruwuñ malaika ku yalla bind ku nit ragal nga len muy ñaar ño xam nak doomu adam faaw mu dajak ñom ñu war ñu war la laaj war la nat ba xam lan nga nekké won fi ci lool nak ma ngay am waxtu wa nga nit ki denc nañ ko ba nit ñewon ko ginaaw di dem ñu tambali ko laaj ci bir bamélam fekk ruuga ak yaram wa tàqalikoon na biñ lay laaj nag mboolem loo mas a def day leer nañ nañ ci sa bopp dara nga dul jafe-jafe yi nga di fàtte fi déedéet lep day dal di mat mat day te ndax ñoom dañ la ciy dimbali bu ko defee nag loolu lépp nag di wan doomu aadama ngir mu def yitte ak pasif ak jom ci kaw buy dund waxtu wi muy dund lo fa wax it dañ koy bind iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba loo fa wax dees na ko te loola lañ lay takkal sa téere baat ëllëg bis benn ci nga neen da ngay taxaw ci taxawaay bu mag di ko jàng nit ñu njëkk ak nit ñu mujj ñëpp di dégg la ngay la ngay jàng la nga def ci sa li nga def foofu te bind ko ci sa téere boobu soo accès ci loo xam ne da ko wóoru sa wax mbaa da nga koo ragal a wax ñoom dañuy am lu leen mett ndax li ñuy xalaat mooy kii bi muy def lii mi ngi wóor na ko ne yàlla am na te boobu ba tey yàlla di dugut di am te rusu ko woon mu ñëw ne dañuy rus xanaa ñi xanaa kii dañoo bëgg a juyeeleeg yàlla sunu borom daal ko cee doo dóor yi méttee méttee méttee ba nee nañ daanaka a dem ci suuf loolu it bokk na ci li nga xam ne bind nañ ko nga xam ne kon am nañu weddi mbugalum bàmmeel ñu ne bàmmeel ni mu xatee nga nga nga fatt nit ki suuf ndeyjoor suuf càmmoñ suuf kaw suuf suuf ci bopp beeg lépp lépp di suuf ñu ne foofa nan la fa nit nan lañ fa mën a dumaa nit ñoom moo tax ñu weddi bàmmeel waaye ndeysaan wax nañ dëgg ndax am xel دافا ام لوم اتان ام لوم اتانوت واي سين خيل فوف لا يام با واي يو باري با نيو كيغي سي ادنا خامنا مانا نيك نيت كي ناك سا يو تدي سي باميلام نيت فان يو ني روغي مانا ديلو سي تي موم با اي فاني فاني فان روغي يت داي خول جيم جي دي ييمو تي موم تولواي يم مجو ديكو فاتالي تولواي يم اميون في تي ادنا ci nim doon dundé ak nim mu meloon di xalaat ne ko tay xol sa biir bi xol sa bob bi xol sa tanki xol sa yaram bi di ko fatel lu bare bare bare xol fi ma sa jaar mu di fa xool ay jeexitam ak lan la nit ñi di wax ci mom fekk ruugi mom mu ngi alamul arwah ndax ruugi mom nee du fàtte dara dina xam lépp. yëg-yëg bi ñuy wax lépp ci moom lay jeexital bu ko defee doomu aadama ju ne di nga tëdd woo bu nit ñëpp faatoo nag nga xam ne kenn desatul doo aalamu mulk doo aalamu malakut doo aalamal jabarut boo xam buñ ci tuddee laahut ak naasutit yëpp dara luy dund doo dafa des jëmmi suñu borom rek ak lam fa desal jamono boobu nga xam ne lépp jógee na dara dese desatu mooy li suñu borom di wax ne li manil mulkul yawma ana tey kan mooy ki nga xam ne nii daraam jeexut moom rek la mbiram des mu daal di tontu lillahi wahidul qahar yàlla rek moo tax mu ne wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram yàlla rek moo fi des su nit ñi nag dekke danañ dekk jugee ci seen biir bàmmeel nii ñax mi di saxe nit ñi danañ ko jugee ci seen biir bàmmeel wuti ab taxawaay boo xam ne ñii dañuy raam ñii dañuy dox ñii dañuy daw ñii dañuy bërëngu bokk na ci ñii bërëngu di di seen xarkanam seen xar bi di dagg di diri ko njaalookat yi azunaat seen xarkanam kanam la ñuy doxee duñ sol dara xet gi nag di gilli waaye ñu jëm ci taxawaay ba nga xam dañu am ay màndarga lool nit ñi daañ leen taxaw taxawloo ci benn barab jinne yi wër leen jinne yi taxaw malaayka yi wër leen ñuy xaar di nekk di di am ku ñuy xaar Isa ñu dégg am riir bu mag ñu ne di ñu ne ma nga ñu xool ñu ne du moom nakate ay ndawam la ba jëmmam ji daal di ñëw mu atte nag min qablu woo min baad lépp lu fi mas a jaar rek dana ko àtte bis bàyyi li gën a sew waaye nag du bàyyi li gën a dijji lu ci nekk dana ko toppanteeg jàmm foofu daal lenn rek fay musal nit mooy ak njëggalam te yàlla nañu ko am njëggalam loolu nag moom la gaa yu baax ñëpp daan ëpp yaakaar ci li ñuy jëf moo taxoon daawuñ naa ko njéggalam loolu moo tax mu naan jéggalu leen seen borom te ngeen dellu fa moom balaa balaa bis bis bis bis ñëw boo xam ne ni tey da ngeen bëgg a dellu ginnaaw mu ta leen ticc yonent bi ne at taibu min adanbi kaman la damba képp ku tuub bàkkaar yi mu doon def ba yàlla jéggal dana mel fasun borom ku mës a def bàkkaar nee na su fekkonte ne bi àddina dama ko sàkk te kenn du fi def ay njuumte damay jëlee ñi fi nekk ñëpp indi fi ñuy def njuumte tay deltu ginaaw deltu ginaaw gi moy li nga xam mom la yalla yéegalee jamm kullu bni adam khata wa xayrul xata ina tawwabun adam képp kum doon sa mam man nga xey jum waye len rek moy tax sa njuumte gi am njariñ moy nga deltu ginaaw tax xam la da nga deltu ginaaw baña reey baña def israr israr moy nuru ci bakkar lu nee nga fi nag ci àddina la ñuy gis waaye ñun sunu mujj fii ma wax fi la fi la jëm bu yàlla àttee nag ñii ñi war a dugg aljanna danañ dugg aljanna yàlla ca bokk ña war a dugg sawara danañ dugg sawara yàlla ci mucc aljanna nag jàng nañ ci tur wu ñuy wax jannatul mawa jannatul firdaws daarul qaraar daarus salaam ak yeneen aljana bañ wax ne mat na juróom-ñett sawara alxuraan tudd na ay turam boole na boole na ci jahannam boole na ci laza boole na ci xotama boole na ci haawiya boole na ci saxiir ak saqara ak xotama muy sawar yoo xam ne benn bu ci nekk doomu aadama attanu ko te lenn rek kay tax mu am fa mu am fa jëflante mooy def lu mu wërta def ba noppi xaabaabal ci bari na ci ñoo xam ne tey ñu ngi seen biir bàmmeel waye buñ amone tawfiq jugat billahi luñ massa wax ci adina dañ ci daltu gannaaw waye ñak xif ak wér ak alal ak njayeelug doomu adamay dañu yobé nit bu génné kàddu go xamni ne xajul sax jigeemi ñam ben misal rek firawna bi muy wax ne ana rabbukum al aala kàddu googu xajul ci gémmiñam ndax iblis bi mu koy déggee dafa daw ndax nee na ko kàddu gi musuma dégg ko wax yaa yaa ci njëkk xam naa wamatu yaa mujj lu ko sabab ah li muy jëfandikoo wér gi ko yàlla may ak kàttan gi ko yàlla mayoon moo tax lu la yàlla jox lu ne boo ko ko delloowaat rek ba day gën a duun gën a bari gën a taaru gën a sax fi yow waaye soo ko yemalee ci sa bopp day gën a néew doole di gën a jeex di la gën a indil ay musiba ak i nattu ak i ak tiis kon nag ginnaaw yaa ngi dund di xam na lii ma lu wér la dara du ko tee doon dëgg ki koy wax ak ñam koy wax la ca ab solo mooy def gi def gi lu baax kon nag nga góor góorgóorlu fexe ba yii yàqe ak yi nga xam na nii mooy lore ak yiy fàttaloo bañ laa dikkal dikkal lii moo xam ne wala nga bañ su la dikkalee mu da yóbbaale kon nag bàmmeel mu ngi ci sunu kanam nii lañ ko jàngalee wàqi ba mu xóot jël doomu aadama bi dugal ci biir bëgg nañ sax néew bi ci boppam buy bëgg a faatu soo ko jege jërul nga naa ko waxal waaye neen laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ndax nee nañ ku mujj ci say kàddu rafet nañ ci yow njort na di nga dugg aljana yonent bi sax nee na dana dugg aljana boole nañ ci di wax ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin boole nañ ci boo buñ ko mënee jàngal suratu Hud ñu jàngal ko ak lixlaas ñeen fukki yoon ndax bàmmeel ci boppam ni ma ko waxee léegi dadul ay caaxaan te it diir bu yàgg yàgg yàgg la da ngay xalaat rek suñu maam aadama suñu maam aadama yàlla moo ko moo ñu ko nettali na ba ab ne aadama bil xaq kon aadama ko amoon la waaw ba mu tëddee ba léegi ñaata at la ci lu mu nekk loolu nga di ko xalaat suuf si nag ba nit ki day ne ci biir suuf di bëgg a nooy wuta ko wala dootu mën a nooy wala day mel ne kuy nelaw lépp a ngi ci biir suuf kumpa la ku àgg ci biir man da nga koo da nga koo fekk bu nit ki jógee foofu it taxawaay bi ma waxoon muy taxawaay bis penc yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughniihi bis la boo xam ne daal nit dana gis yaayam di ko daw nit gis baayam di ko daw nit gis xaritam di ko daw nit gis rakkam di ko daw ñii ñoo ñi ñooy ñi nga xam ne fi ñu daje ci àddina mën nañoo fekkente xarit ab xew-xew ñëw muy daw xaritam yombut te ñu nekk ci jàmm yombut bariwul lu muy am ñooñu kay dañoo xam li xam ci moom mooy dajaloo gën a dend waaye bis boobee moom ki gën a ku gën a jege sa morom ko daw ndax di ragal ne ameel nga ko àq jum lay toppee te li nga jëf ci lu baax bëggoo cee manquel dara wa saaxibatihi wa banihi nit ku ne mën ngaa daw daw sa soxna ngir yaakaar ne amee nga ko àq mbaa moom mu amee la àq ku ci nekk di nga am lu la doy sëkk ci yonent yàlla aadama lañ koy tàmbalee nit ñi di dem ci ñoom tawassul ñaanal ñu yàlla ngir taxawaay bu metti bi ak tiis bi ak tiitaange ji mu teggal ñu ko te dimbali ñu aadama ne ne bëgg naa ko lool waaye ñemewu ma ndax di xalaat jamono bi mu nekkee aljanna بام واتي كوسوف نان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نيب تيت ني ديم تي نوح مو واخ لو مل نون ني جاب هود صالح تونت بي دي بن با ني با ني اكسي تي عيسى موي بن تونت بي كين نيميتول كين نيميوول جاكارلو جيموم جي تيد بي نيوي با تي يونت صلى الله عليه وسلم موميت تي داغي جي جاب نكو واي توفيخال سون وون ديكل نكو مو ديم دي سجوتال يالا ديكو سجوتال ba suñ borom ne ko sal toata laajal loo ñaan ma may la ko tey mu ne ko rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim boobu fekk na yëf yi tàng jër ñu bari jaaxle te nekk ci ak tumuranke nag am na ci nag dees na leen dimbali ndax wutal nañ seen bopp euh, sabab buy tax yàlla dimbali leen mooy yenn bàkkaar yi dëgg la naam daanañ ko def waaye daanañ deltu ginnaaw yenn àq yi laataa ñuy faatu góor góor lañ def seen kemtalaay kàttan سيرين فاتو يت أمن نيت نيلن دان فيت جينا دين يانا أجي باري باري باري أمن نيت يوحنا خدك يال نين تخو أي بوسخ يال دين دين لين جمسل شو ليك متي دو أكتيسو نين سوين برمان لين جمسل نيم دنا فيك نيم ينك تلانين وقيل إن حضر يوم الباري وضرب الصراط فوق النار وكابد الورى جوا والغم نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين أبدا ورحمة يرون لجيل جيل يدسون تي تيال ركتخ شو نيي أكتيسي أن متي دي نيوم دون démb la woon bis benn ci la ñuy dégg ci seen biir yalla ñu ci sunu borom boole. mi ngi ci masaalikul jinaan nag ngir ah nit ñi moom am na ci xam dañoo dañuy def lu ñu dégg rek ndeysaan def ko lépp fekk mu nga foofu ci biir téere boobu koo koo xool incha allah di ko ci gis. bis benn ci ngi noonu daal bàyyi mën naa mën naa fexe ba dugal doomam sawara ci ay wax waaye lépp nag du doon ay tuuma doom mën naa fexe ba dugal sawara. ci lépp doon tegu ci dëgg ba tey du doon du ay tuuma ndax foofa kenn mënu faa tooñ kenn mbaa nga waxal fa nit lu dul dëgg ba suñu borom sukkandiku ci loolu ndax ki ki leen àtte boo jàkkaarloo moom tiit nga tiit ji ngay tiit mënoo wax lu dul loo lu mu xamul te la ca gën a yéeme mooy sa cër yi mooy seere soo waxee lu amut waxukaay bi war a wax ne waxut dëgg muy tànk yi muy bët muy loxo yi lu mën a doon da lay seere di ci li ngay wax kon nag bis boobu daal mat naa sedd mat naa bàyyi xel mat nay fàttaliku mat naa xalaat te it jërul di bañ a déglu ndax yàgg-yàgg di nga ci jëm loo xam ne aw métti la te yàgg-yàgg di nga ci jëm bu ko bañ a déglu fexe koo fexe koo jéem a dégg fexe koo jéem a xam ndax soo fa àggee rek lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt dana am lu la dimbalee waaye nga xam ne lii danga ci jëm nga di ko weti ñaam di ko daw di ko randale di faxas say nopp boo ciy dugg dalay lay bett te aw mettit nga cay mujjee moo tax daanaka jëru bu ko defee nag dana am ñoo ñu dugg sawara du samay wax waxi sunu la am na loolu la bañ a dégg sawara nga xam ne boo leen dégloo mooy sawara moom bu kenn tuddati warta am sawara mel ne ne yàlla euh, da ko bind waaye nit ñi waaye nit du dugg te wax na fa baree bari ci alxuraan dana am ñoo danañ dugg sawara tuddul tuddul tuddul tur nag waaye ay melukaan la tudd yu taxa nit dugg sawar noonu it la wah aljanna wax ay melokan yu fay dugal nit loolu nak pas-pas bu wér la bo xam ne bu ko bu ko fas ci sa xol man nga mucc ak sawar ko mi ngi noonu moy nit ak barab bu ñu wax laaraaf sunu borom neena na ëllëg li gëna ti li gëna ci mi ngi wax ci alquran dana am ño xamne danañ am ñun jàkkaarloo ci biir sawar ñuy tëmb di feey ñuy yuuxu yuuxu yu mett am ñu ne am ñu leen di naan la man de diw mii ku ne moom dana dugg sawara du ma gëm te kooka ka kay wax ma nga aljanna am ku naan moo ne ñoom jàppoon nañ ne ñoom ñi jàppoon nañ ne rek sawara bi ko yàlla yi bind ñun ñii ñoo tax nga xam ne kii nekk aljanna dafa dañ ko doon wax luy tax dañ ko doon wax lu koy ñàkkloo yaakaar moom mu yaakaar ne moom euh, sawara la jëm ngir xeeb guñ xeeb aw melokaanam loolu mi ci biir alquran muy loo xam ne nag tey foofu lim lay dimbalee mooy bañ a naagu bañ a gis sa bopp bañ a yëg li ngay jëf yàlla dafa xeriñ te yàlla mooy def mooy dindi lim bëgg mooy am keneen ku ne li nga bëgg wóorugut ci biir bëgg-bëggu yàlla rek nga mën daal sotti boo jàngee xasida yu bari baatu annaaru da nga ko ci gis annaaru sawara wax na ko ci biir xasida yi bari foo gis annaaru rek sawar lay wax da nga jàng xasida yi dajeeg aljanna muy aljanna kër pay ga loolu it Sëñ Tuubaa day wane ne lu am la dara dindiwu ko muy loo xam ne nii tey tënk gi ngi tënk ak wattandiku gi ngay wattandiku mooy tax nga mën a mucc bu doon tene daa doon lu fanq mbaalu fomm li ma waxoon léegi li ma waxoon démb ci waxi sëñ saali jooju muy wax muy wax waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xofatil jannatu bil makaari wa xofati naaru bi shahawaat te ku leen ña xam yëg nañ coona ak métit ak tiis ak mujahada ak muhaasaba ak muraqaba bu metti buñ dund ci àddina ci nangoo xiif nangoo mar toog ba mu yàgg di jooy jooy yu méttee méttee métt ci digganteeg seen borom am yuñ xalaat yenn yi defuñ ko sax waaye dañ koo xalaat moo tax yaraw na anfusahum duunal wara abadan wa annahum lam yariqu bi karamaati luñ mën a jëf ci aw yiw lu mu bari bari bari bari bari tiitaange ji ñuy tiit seen digganteeg seen borom fàtt na leen luñ mën a mel ak fuñ mën a bokk ak luñ mën a doon loolu nag ay melokaan ay jikko yu baax la waaye koo xam ne nii daa gaaw a naagu lu mu jëf yaakaar ne mën na caa amee lu bari mën na caa dugal ñu bari am na ci dem nañ ba jàpp ne sax faatu rek leen téye tàbbi aljanna mën naa baax de mën naa doon rafet njort de waaye wóorut de moom ndax dëgg la nee nañ suñu borom nee na maa ngi fa njortul sama jàmb lu mu ci man rek mën na ko fay waaye nag du tee di tiit bay bay watandiko mo gën diko diko, ñëmé bay dugg ci lo xam kon nak bis bu tedd la ci bis bi bis yi ñu ngi ñaan suñu borom mi dara tawut ci ak mbaxam ah kaamil bi jeex gi mu jeex ak ayat yi ci nek ak suwari muy sari ak badi ak hurufi ci aw yiw ci teranga ci ak ci sago ci mucc yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp ñi teew ci jataay bi ak ñi fi ak ñi fi teewut ñëpp yàlla yéwénalee ci suñu mbir àddina ak alaaxira ci mboolem araf yi ci nekk dégg naa ci benn waxtaan woo xam ne Sëñ Sam Mbaye moo ko doon wax te nit la ko ñëpp ñu bari doyloo ci melokaan wu yéeme wu ko suñu borom melloo woon mu ne wax nañ ne alxuraan am na baat bu ne ci biir boo xam ne bu ci nit ñaanoon yàlla mu jégal iblis mu jégal bu ci nit ñaanoon yàlla mu fanq bismee ji mu fanq waaye yàlla moo lëm baat bi ci biir làmboo na ci ay tur yàlla yoo xam ne benn tur yàlla gën a ko màgg tur yàlla yëpp a ngi ci biir te ni ngay ñëwee ci jëm wax ko wax boo xam ne nii bu la bëggutoon a may sax dana la may loola ci yàlla la fekk baax donte yàlla bokkut ak nit kon nak ñu ngi koy dagaan di ko yalwaan di ko ñaanta di xaaraan ngëneelam ak yiw ak xewal ak e, secret yi mu yor te diko joxe te diko wañi dara Yal nañu ko jox lepp luñ ñaawle it yal nako dindi Yal nañu musal ci gatt fan Yal nañu yalla musal ci gatt fan yàlla nañu yalla musal ci gatt fan yàlla nañu yalla musal ci gatt fan yàlla nañu yalla musal ci gatt fan yàlla nañu yalla musal ci gatt fan